que mbir mi du woon manifestation kese c'était un acte de déstabilisation de de de l'État. mais du manifestation kese c'est fou c'est vrai y a des rebelles ñu waroon lakk 17 sites yu Sénégal nakk benn ñu jàpp leen université. 17 sites. oui c'est-à-dire yu sensible Sénégal. mais Am, comme comme yan. yu sensible Sénégal xaaral ba enquête yi continuer am ñoo xam ne nii seen rôle moo doon rakk toutes les stations de terre ñu lakk benn ñu jàppale am ñoo xam ni dañu waroon rey ay personnalité affaire attaqué ay personnalité clairement identifiée ñu nekk ci réew mi. yor attaqué da déggoo li ma lax wax dama ne la téléphones yi bi ñu waxee déglul baax ne ma la wax. parce que ñi ñu jàpp bari na téléphone yi ñu jël bari na téléphones yi bi ñu waxee am na personalité yu bari dëkk yow mii yow mii par exemple dans les médias. yow ak man ak Madiambal Diagne ñi ngi woon ci liste bi. gaa yi ñi ngi woon suñu loolu moom xam naa ko. non non ñi ngi woon ak suñu numéro oto. Hmm. ñi suñu géolocalisation kër. ma wax la loo xamul ci yow vérifier ko <laughs> non vérifier li ma la wax parce que téléphone yi wax nañu. est-ce que dëgg baax na ma la moo ci média yi laa yem parce que ñun ay journalistes la mais ñooñu ah, y a des hommes politiques yu nekk ci liste bi. nos maisons nos véhicules. non dama ni ñi ngi woon ak géolocalisation bi téléphone yi waxee. ñi ngi woon ak géolocalisation sa kër. géolocalisation sama kër sa numéro plaque oto sama numéro plaque oto géolocalisation kër ma Madiambal Diagne géolocalisation plaque oto kër Madiambal Diagne dégg bu baax li ma la bi téléphone yi waxee ay kilifa diine yu mag fii yoo xam ne yoon nañ seen géolocalisation ak seen te numéro plaque oto ay homme politique y compris deux ministres yoo xam ne ñi ngi woon ci liste bi te bu téléphone yi waxul woon ba ñu arrêté ñi ko waroon def ndege si du toog fii man ak yow di wax. deux minutes yooyu dañ leen bëggoon a rey. déggoon non waxum dama ni dama lay wax lu leer xam nga mënuma wax rey dama ni y a une de personalité yoo xam ni yow yaa ngi ci man maa ngi ci ma jàmbal la ngi ci deux ministres ñi ngi ci ay hommes politiques ay députés ñi ngi ci ay chef religieux ñi ngi ci ñoo xam ni seen numéro téléphone. seen géolocalisation téléphone seen plaque d'immatriculation oto seen géolocalisation kër yëpp mu ngi woon ci bandi te téléphone yi feeñ moo tax ñu arrêté ñi waroon attaqué ñooñu xam nga xam nga lan moo naroon xew ci réew mi hmm. dañ naroon toog déjà ñu hacké tous les ordinateurs dans tous les sites sensibles du pays te loolu commencé woon na. y a eu un benn bu loolu pare le même jour. ñu saboter tout le système de distribu d'eau distribution d'eau Sénégal système bépp ndox dootul amati Sénégal loolu tàmbale woon na xam nga ñu jàpp leen le même jour ñu yàq kon interconnexion centrale yi courant dootul amati Sénégal ñu attaqué des personnalités marquantes en même temps lakk 17 sites sensibles en même temps lakk toutes les stations TER loolu moo danoon xew la même jour Sénégal. le premier juin loolu moo. est-ce que dégg nga baax le deux juin loolu yi waxul woon ba de sécurité yi anticiper ba def loolu àddina day tukki Sénégal. Hmm? du ma waxantu vérifier li ma wax journaliste nga vérifier li ma wax. mais information foo ko jëlee. vérifier li ma la wax. téléphone yi wax yan téléphone la. yow xamoo woon ni yow xamoo woon yaa ngi ci liste benn liste. si waaw euh, man xam naa ne maa ngi ci liste waaw ils ont tenté d'attaquer mon domicile ils ont tenté d'attaquer ici hmm. euh, loolu c'est pas loolu du lu bees ci man vérifier mais yan téléphone moo wax non téléphone yu bari du ma ne la téléphone diw ak diw téléphone yu jël bari na yow xam nga ni téléphone yi ñu jël bari na waaw téléphone yi bi ñu waxee moo tax tey man ak yow ñu toog di wax sinon nag ni si duñ toog di wax moo tax ñii di rëy làmmiñ di wax naan xaw man la nag la nag lan bu ñu xamoon li ñu laloon jëmale ko ci réew mi te loolu dina feeñ <laughs> y a des enquêtes en cours y a des enquêtes moo tax les vrais dossiers commencé gul les vrais dossiers noo commencé gul parce que téléphone yi wax na ordinateur yi wax na clé USB yi wax na lépp wax na mais xam nga ay jeunes yuy manifester seen colère parce qu'on a euh, condamné euh, ma ma wax condamné parce que am na ñu ma koy reproché condamné leur euh, leur leader euh, des jeunes mécontents euh, pour d'autres motifs euh, ñan ñoo conduire cette entreprise criminelle de déstabilisation. non may mun a loolu yan yan je li ma la wax nii mënuma la ci waxaat leneen. mais loolu ça pour conduire. non non du la wax non non non il faut fi ma la wax nii. Mhm. fi laa mën a yem. li ma la wax nii yëpp nag journaliste nga am nga say entrée vérifier <laughs> vérifier li ma la wax. donc Antoine Diome n'est pas dans l'exagération quand il parle. dama ni la Antoine Diome waxul dara Antoine Diome li xew mënu ko wax parce que bu ko waxoon àdduna bu tukki la Antoine Diome waxul dara. li ma lay wax nii du ay invention maanaam ay fichier la ay numéro la ay message la ay données la man li may suggérer sax gouvernement Sénégal nañ jël huissier tubaab bu mosul dikk xam bu dee Sénégalais sax mën na kii Sénégalais la nañ jël huissier tubaab bu ma xamul dara ci réew mi ñu jox ko téléphone yépp na ko transcrire ko ñu transcrire ko ñu wan ko réew mi bu ko defee wax ji jeex